dal leen ak jamb si senelek sen andando bi wóor ci walum courant tay ñoo ngi leen di jumtu kay bi di woyofal ñu defar ko ngir yombalal leen ni ngeen di jëfëndiko sen courant ak woyofal man ngeena xam ñaata ngeen jënd si crédit ci wër wi tewlu leen bu baax leral yi te ngeen di seytu ni ngeen kay jëfëndiko ngir ay leral yu yaatu bind leen 802 ak 803 ngir xam bis bi ak waxtu wi bu ngeen soxlaa ay leeral ci seen compteur bind 804 ngir xam numéro compteur bi 869 ngir xam fu dooleem ji mën 808 ngir xam fu dooleem ji toll 812 ngir dakkal alarme bi 810 ngir xam tolluwaayu dog yi maanaam valeur de découpage ak woyofal mën ngeen a saytul seen bopp seen courant topp leen leeral yi di sakanal seen courant te fexe bokk si ñi yewenal courant ngir mu su ngeen soxlaa ay leeral woo leen ñu gaaw ñoo ngi leen di jaajëfal si tànn ngi ngeen ñu def ngir seen courant lekk seen àndandoo bu wóor ngir courant buy sax. xam nga Serigne Moustapha Sy yow sax jox nga ma occasion ma wax ci moom parce que euh, man <coughs> Serigne Moustapha Al Maktoum ba Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al man dafa nekk sama sëriñ pourquoi mu nekk sama sëriñ nag lu ma a leeral la parce que bariwul lu ma koy wax euh, gannaaw bi yàlla defee ci man ma jàngal sama bopp ba yàlla indi ma fii mu ma indi ci wàllu njàng bari na formation bu nekk ci man te waa Moustarchidina moom ci boppam moo ko def ci man ah, à distance oui oui oui oui parce que man dama nekk Louga yoo nag maa ngi lay defal maa ngi defal exception ah xam naa boo gisee photo bu sëriñ Moustapha boo ñu dendalee moom tey da lu bari <laughs> <laughs> c'est normal parce que j'étais à Louga nek élève di jang c'était en 1984 1985 amaguma sax BFM parce que dama ñëk jang alcorane ba paré ak arab Dogo a dugg ci école bi dam kargaay li ñaan dama leena kari <laughs> Serigne Moustapha Sy euh, Al Maktoum créé ce qu'on appelle colonie de vacances moo tax nga xam Serigne Moustapha ku am vision la colonie de vacances bobu opération fay mbuus yóbbal lañ ko tudde won c'est en 84 85 ci vacances yi. diwan bu nek Louga Thiès Mbour Kaolack fur mu sarsi dina yi nek rek ñu dajale fa lu mat fukki nit ñu jóge ci di région dem ci région fekk fa ay dina ñu def ay formation def ay daïra waxtan ci l'islam waxtan ci tarixa bi Serigne Moustapha def na ko en 84 85 mhm. man ci kono yi laa bokkoon ma joxal xabar xabaar ñi ñu tànnoon ci Louga ñu war a dem mbuur fekk fa ku ñu daan wax Lamine Ndiaye sem gaañoo na yàlla na yàlla yërëm ko ak sëñ Cheikh Samb mu daan woy kooku defe naa gaañu na moo tamit yàlla na yàlla yërëm ko ñu dem foofu ci mbuur bokk ci colonie de vacances yi après ba colonie bi jeexee ñu ñëpp ñu daje Tiwaawoon ba noppi itam ma nengoon ma nekkoon membre yi daay entier ci daayiratul Moustarchidina wal Moustarchidaati nekk secrétaire zone parti bi loolu tey laa ko mas a wax ni waa Moustarchidina ñu bari xam nañ ko ba noppi ki jiite woon coordination bu Louga di góor a Gueye nga xam ne Serigne Moustapha moo ko fa tegoon région de Louga bépp mu jiite ko mais yaayam ak sama papa bokk ndey ak baay vous voyez Gora Gueye bu Louga yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay te moo jiite woon Moustapha yi sama mag ñu tudd ko Seydi Cheikh Ahmed Tidiane sama eh, mag ñu ma bokkal ndey ak baay ba noppi moom mu nekk ci kaso bi parce que jàppoon nañu Moustapha yi en 94 ci xeex ci xeex ba ban rayee sama frère bu ma bokkal ndey ak baay jàppoon nañ ko yóbbu ko prison Preuse rëbës ndax mu sarti dina yi ba noppi doomam gane àddina mu tudd ko Serigne Moustapha te fekkewul ngénte la man boobu j'étais boobu maa ngi université boobu génn naa ko ban boobu maa ngi nekk étudiant te man mii sax doon na ma jéem a wër parce que man j'étais à l'université ñu xam ne man gisuñu ma ci te dem meeting ba sax dama fekkoon fac moo tax ma woon alors kon Serigne Moustapha man sama sëriñ la Euh, li ma metti rek mooy fan yi yëpp ci gàmmu Tiwaawan gi ci suba ga du ma fa mën a teew ndax day fekk ma nekk ci yu baree baree bari mais maa ngi ñaan yàlla gàmmu yi di ñëw moom dinaa dem jàkkaarloog moom te Serigne Moussa xam na ma tey li ma def 2 lu ma def émission te invité wu ma waa Moustarchidina avant ñu am télévision ñoom ñoom xam nañ ko ay ñoom xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax mën naa la ci limal lim bu dul jeex mhm. su waxee ne mhm. mën naa yóbbaale Sonko kàddu gi nañ koy dugal ci kaddu yërmande kaddu yërmande parce que Serigne Moustapha xëy na bon selon ma propre lecture xëy na Serigne Moustapha am na ñeewantu lu mel ne Pastef lépp bañu dugg ci ndox mi mu ne nañ dem ma yóbbaale leen mais nañ dem ma yóbbaale leen ci wolof mooy kaay ñu ànd dem mooy coalition rek pourquoi ñu bëgg fab wax boobu ne ah kaay ma yóbbaale leen Serigne Moustapha du waxee noonu moo tax moom parfois liir waxam lu jafe la Serigne Moustapha. est-ce que mais papaam noonu la mais Serigne Cheikh Serigne Cheikh noonu la meloon papaam loolu moom loolu la doonu Serigne Cheikh il parlait par parabole. Serigne Cheikh day xam ne lii caméra la mais dina la wax boo déggee wolof ba xam lu mu la bëgg a wax te du tudd caméra bi waaw. mas naa dégg Serigne Cheikh mu wax wax bu am solo waxam yépp am solo sax mais loolu dama koy faral di wax dañ ko mujj sax def jëngal ci rajo bi parce que nit wër te ragal. nit dafa war a gëm yàlla ba noppi ñeme àddina su ma defee nangam ñu coow ma samay mbokk buñ ko déggee mu ñaaw koo koy topp doo dem sëriñ Cheikh ne àddina ñoo ko mën fuf waaye dañ ko ragal nañ ko song te bàkk yàlla loolu mooy njàmbaar donc donc sëriñ son son propre papa son père lui aussi il parlait par parabole il était un peu nuancé mais intelligemment parce que président Abdou Diouf ci boppam am na ku ma nettali ku ko jege ci jamonoom ne ma bu Serigne Cheikh daan wax dara mu déglu ko wala mu recevoir ko wala yoon bu demee day wax waa mais euh, Ousmane Tanor Dieng est-ce que que Cheikh a dit lui il est trop philosophique il est wax <laughs> te Abdou Diouf xam nga mu ñàkk a bañ a dégg wax lu dis la mais mu ne Serigne Cheikh parfois il est il est de comprendre ce qu'il veut dire est-ce que tu as compris a dit donc loolu la Serigne Moustapha di waxee léegi nag wax boobu muy wax noonu du ko jëmale ci waa Pastef ne mën naa leen a yóbbaale lu tax nit ñi gisewuñ ko ne moom mën na waxtaan ak ñoom ñu ànd rek ci yërmande ah yóbbaale leen et ba tey sax waa même waa Moussa Sidina sax man na ànd ak waa Pastef où est problème parce que ñoo bokk seen yeewi askan wi donc politiquement parlant defe naa ne Serigne Moustapha noonu la waxee mais nag bëgg fa wax ji diaboliser ko nangam à part que moom wax yeneen wax yoo xam ni nag moom wax boppam la mhm. yoo xam ni xëy na moom la tax mu wax ko moo ko xam man nag du ma dugg ci ah ah euh, sàmm boo xam ne la muy walis xaw ma ko mais daal xam naa ni sama sëriñ la xam naa ko bu baax a baax mas nañoo toog xam naa ko xam naa ak njabootam te xam naa ne nit ku baax la waaw Sénégal nag boo waxee ci nit ñu ne wala nangam mais moom sama sëriñ la loolu loolu man mënu ma ci dara <laughs> waaw parce que ba ma daan nekk ci musar dina di wax ci daayira yi wax formation bu bëree bëree bëri bëri fofu la ko jëlee. waaw à part que après j'ai fait le journalisme et tout mais euh, maa ngi koy sante bu baax diko ñaanal nag gudd fan ak wër ok parce que ñu bari dañ koy faral di critiquer ci discours politique yi mi faral di tenir ci gam waaw mais attends il y a deux heureusement que tu as dit discours politique. voilà très bien heureusement que waxoo discours religieux. bah, discours politique c'est un discours politique lambi gola la loo sa borom parce que quand Serigne Moustapha parle de la de la politique mm-hmm. mais considère-le comme un citoyen quand il parle de la religion considérez-le comme un marabout mais il ñaar a une la dichotomie entre Serigne Moustapha qui parle comme un citoyen politicien et un Serigne Moustapha en tant que fils religieux mais il y a un problème quand il parle de la politique considérez que c'est quelqu'un qui est né dans ce pays qui a une carte d'identité nationale signée comme que le signal yow tamit am fi ay wayjur beaucoup ci famille bu baax di ci Serigne il a

clair qui parle de l'islam et voilà l'islam tel tel tel bu ma traité en tant que oustaz mhm. cela n'a rien à voir mhm. avec oustaz Maodo avec le journaliste Maodo qui prend son histoire et qui écrit dans le journal sur Quotidien je damay prendre un papier un commentaire politique wala sociopolitique là je suis journaliste Serigne Moustapha considérez-le comme comme ça mu okay. dal leen ak jamb si senelek sen andando bi wóor ci walum courant tay ñoo ngi leen di jumtu kay bi di woyofal ñu defar ko ngir yombalal leen ni ngeen di jëfëndiko sen courant ak woyofal man ngeen xam ñaata ngeen jënd si crédit ci wër wi tewlu leen bu baax leral yi te ngeen di seytu ni ngeen kay jëfëndiko ngir ay leral yu yaatu bind leen 802 ak 803 ngir xam bis bi ak waxtu wi bu ngeen soxla ay leeral ci compteur bind 804 ngir xam numéro compteur bi 869 ngir xam fu dooleem ji mën 808 ngir xam fu dooleem ji toll 812 ngir dakkal alarme bi 810 ngir xam tolluwaayu dog yi maanaam valeur de découpage ak woyofal mën ngeen a saytul seen bopp seen courant topp leen leeral yi di sakanal seen courant te fexe bokk si ñi yewanal courant ngir mu sax su ngeen soxlaa ay leeral woo leen ñu gaaw ñoo ngi leen di jaajëfal si tànn gi ngeen ñu def ngir seen courant lekk seen àndandoo bu wóor ngir courant buy sax